dernière information biñ ñu am ndax nek ki nga xamné moy Pape alignan mom mi li nag dot nañ ko may li nga xamné moy liberté provisoire le journaliste Pape alignan jot nañ ko libéré gennaw bañ ko jappé ñaar yoon li débuté won ci li nga xamné mo le 6 novembre 2022 lañ ko deux di mom nak may nañ ko li nga xamné moy liberté provisoire niki tay ji bu andax nak li nga xamné moy contrôle judiciaire autorité judiciaire sénégalaise yi lañ ko daal accordé jaajëf mbokk yi li moo nekkoon lu gën a fës ci li nga xam ne mooy xibaari bi si di leen joxo di daje ba ëllëg incha allah ñu fanaan jàmm.